فايدة مواضيع كلها فايدة كلها فايدة كلها فايدة مواضيع كلها فايدة Yeah. كلها فايدة مواضيع كلها فايدة les internautes salaamaaleykum ñi nga xam dañuy suivre Teuf Connection euh, ci bon mën nañu wax que ne Teuf Connection TV euh, Sénégal ah comme on a l'habitude de le faire on nous on rendre visite à euh, euh, euh, muy un couturier bon kër gi maison ngi kër Makumba couturier. tax un donc couturier en même temps bon On nañu wax que ni day créer artiste la looloo tax ñu tabaski xam naa ñàkkul mi ngi def ay création ak leneen ak leneen léegi balaa boobu dañ koy bàyyi mu présenté wu mu waxtaan ak ñi nga xam ni euh, dañu faral di suivre Teuf Connection TV Sénégal asalaamaaleykum Moustapha maa ngi lay ziar di kontaan trop ci ñëw bi nga ñëw fii nii ci fi nga xam moom mooy tudd Kër Macoumba donc euh, ñu ngi présenté man la Cheikh Sylla donc euh, couturier et donc kontaan trop ci ñëw bi nga fi ñëw vraiment di wax euh, que ni ça fait un honneur le fait que nga ñëw visiter indi vraiment émission yi nga xam ne mooy couleur urbaine donc ci loolu dañuy def suñu présentation beaucoup plus large man euh, doomu Ibrahima si la euh, tay maître tailleur ak soxna Binta Thiam donc di femme artisane donc vraiment loolu su ñu ko waxee rek war nañu mën a xam ni vraiment ñu on est au cœur de de l' activité donc euh, yàlla dafa dogal jàngoon nañu mais comme yàlla moom mooy sottal aussi ci ñaw bi lañu mujjee donc muy vraiment deux aspects yoo xam ne dañ ko boole lié ko donc moo ñu permettre à que vraiment ñu taxawal li nga xam ne mooy kër Macoumba Couture mu doon une fierté vraiment de famille et vraiment une fierté de toute la commune quoi vraiment ñu ngi ciy sant di ci gërëm Moustapha jërëjëf mm-hmm. ok léegi pour pourquoi Kër Macoumba. Kër Macoumba waaw pourquoi Kër Macoumba. waaw cette question moom vraiment daf may neex pour ma répondre ko parce que Kër Macoumba d'ailleurs moo xoolee euh, Kër Macoumba la donc y a un nom muy sama tur maam moom la ko tuddee sama maam bi jur sama way jur góor. Maa Kumba Sylla la tudd en même temps waajur bu aussi ma Kumba Diagne la tudd donc j'ai inclus les deux noms ñaari touri la boole muy Maa Kumba ma ma tuddee ko kër gi donc kër gi vraiment c'est la représentation familiale quoi donc ci tour yi non lay yo légui bëggoon naa xam na mo dugal ci couture. <laughs> jërëjëf Moussa donc comme ni nga ko rek comme sank sama présentation bo déglou bu baax wax naa ko donc ñun on est héréditaire ñun dañu ko dañu ko doon donc góor gi mom dañu judd ñun ñëpp ci la ñu ngénte ci ñaw la ñu ngénte et puis vraiment bi ñuy jàng aussi malgré que ne ñi ngi ci école bi mais dañ daan dem atelier amon nañu ay quelques touches yo xam ni dafa nekkon ci ñun donc bi ñu demee ba njàng mi aussi yalla dogal mu yam fi mu war a donc dañu dellu si ci atelier bi vraiment continuer perfectionner wu donc ànd ak góor gi ba yalla def mu euh, élargir yefi ci la ñu ñëwee fii installé wu aussi au niveau de la léegi man li ma bëggoon xam ba xam Cheikh Sylla la. Mhm. Euh, comme comme ni nga ko waxee est-ce que def nga sa cursus euh, normal maanaam sa scolaire normal. Mhm. wala comme pa bi si métier bi doon def muy euh, tailleur bi. ba xam mhm. ci loolu nga konni wala da nga jàng école ba terminé. ñëw wala wala lan wala da nga doon boole ñaar. voilà comme loolu tamit aussi c'est une très bonne question donc vous savez que métier artisan bu mu mel noonu. su nekkee sa kër malgré que da ngeen dem école bu la même bu ngeen di nekk ci yeneen activité da ngeen di am benn touche bi nga xam ne moom mooy nekk ci ci ci ci activité principale kër gi surtout bu ko sa papa day def donc bu dee ëw la da ngay dem ci mbaar mi di ëw ëwantu bu dee ñaw la da ngay dem di ñawantu pratiquement boo xoolee exemple parfait bi ma lay jox moom mooy boo xoolee xale yi fii indi añ bi yëpp su nu ñëwee seen i mbiiri bopp seen réparation bopp la seen lu bëgg liggéey ñoom ñooy toog liggéeyal ko seen bopp sans pour autant nga wax leen nii ngay def nii ngay def donc loolu dañ ci sant yàlla bu baax lu ñuy am la loo xam ne vraiment c'est un acquis boo xam ni sans pour autant que nga jàng liggéey bi nga juddoo ci kër gi rek déjà da am boobu douche quoi kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ok léegi bu ñu euh, résumé. Mm-hmm. en quelques mots euh, bu ñu wax euh, qui est Cercy la. Mm-hmm. yow yow lan nga ñuy wax. <laughs> waaw comme ni ma ko waxee ci présentation rek Cheikh moom c'est un jeune entrepreneur vraiment un jeune couturier donc de Mékhé vraiment. waajur yi aussi tout nañu ko léegi donc euh, je suis de la ville je suis natif de la ville donc vraiment ma ngi fi nii di dal, daal di vraiment euh, def tous les moyens ak vraiment di ambitions ambitions ak ambition ak des objectifs très précis donc pour euh, ci liggéey bi ak li nga dans le domaine dans dans la filière textile là ñu ci am vraiment yéene bu baax a baax di ci am aussi ay vision ak i objectifs yoo xam ne bëgg nañ ko atteindre inshallah, rabbi les serre là, de couture. Mhm. Euh, donc est-ce que mon nga cercles là avec la. Mhm. Euh, métier bon comme tam bu ko doon xayma euh, ñaata nga def si métier bi. te mhm. bon depuis boobu léegi tamit une ouverture la la permettre. yan expérience la si am. waaw yooyu yëpp bëggoon nañu ko xam tamit. d'accord waaw bah, jërëjëf Moustapha donc métier bi nag ñu ngi ciy bëgg a def ay fan. parce que je crois que bientôt on va fêter notre vingt-deuxième année en tant que. en tant que couturier professionnel donc je crois que bi ma commencé liggéey ba léegi ça va tenir bientôt euh, vingt vingt vingt deux ans voire vingt trois ans donc ñu ngi ciy bëgg am ay fan. donc loolu moom moo ñu permettre aussi vraiment euh, am nañ ci expérience yoo xam ne dund nañ ko ci te vraiment loo xam ni la ñu lu ñu lu ñu téye loo xam ni. aussi ay expérience yoo xam ni aussi permettre nañu à ce que ñu mën mesurer aussi li xam ni moom mooy importance su liggéey bi ak euh, li nga xam ni moom la liggéey bi laaj lépp donc sur ce vraiment on travaille plus particulièrement sur la broderie donc comme vraiment nous avons une touche artistique boo xam ni mm, moom ci ci ci yàlla moo ñu ko bindee ñu ñu ñu am ko donc loolu dañ ciy veillé dañ ci gën a gën a gën a appuyer donc yeneen touche aussi dañ ciy liggéey bi culture africaine bi wala li nga inspiration des autres pays parce que nous avons eu eu la chance de voyager un peu partout en Afrique euh, pays bari dem nañ fa donc gis nañu ñoom ni ñuy soloon. est-ce que est-ce que mën nga ñoo euh, quelques pays yoo xam euh, dem et puis l'amour moo la lan moo lan qui euh, ci ci ci africain voilà sincèrement sama sama sama expérience ci Afrique c'est juste pour aller voir. Euh, le marché africain donc l'homme ma Afrique aussi c'était juste pour voir comment le filière euh, textile plus particulièrement couture la au niveau de la sous-région donc ça m'a permis d'aller au Mali ça m'a permis de poursuivre jusqu'au Burkina jusqu'au Bénin et à Lomé donc j'ai pu voir et constater beaucoup de choses hein. j'ai pu aussi eu l'occasion vraiment de fréquenter beaucoup de tailleurs de grands tailleurs comme euh, j'ai vu Alfadi j'ai vu Pateo j'ai vu aussi vraiment Lolo Dijan que j'ai rencontré au, euh, à, Lomé donc ça m'a permis vraiment d'échanger avec eux de voir leur manière de travailler donc vraiment euh, mu basé aussi sur des qualités que li nga beaucoup de professionnalisme et voir que c'est un marché très large parce que nous li les gays donc euh, daf ñuy inspiré ba nga xam ne soo ñëwee fii da nga koy bëgg di ko di ko di ko di ko di ko liggéey donc c'est des professionnels de l'habillement et vraiment euh, da ngay am yeneen idée quoi mais tout en sachant que aussi vraiment nous aussi nous avons quelque chose à garder kon donc ñun dañuy wax ci nekk ci li nga xam ne moom la ñu war rek mooy enracinement on s'enracine d'abord et après ñu ñu am ouverture vers l'extérieur donc ça nous permet vraiment d'avoir une autre visage euh, ci ñaw ak beneen beneen beneen xalaat ak beneen gis-gis quoi mm bon li ma bëggoon xam tamit mooy euh, majeure partie ñan ñooy say client ñan bon say clientèle ñan ñoo si ëpp. Mhm. waaw. waaw xam nga la clientèle elle est trop diverse quoi donc clientèle bi moom moom moom diversité donc am fi vraiment aussi à travers les réseaux sociaux tu travailles sur le net donc la gis donc ici à l'intérieur comme à l'extérieur du pays le monde est devenu global donc vraiment léegi si ça intéresse quelqu'un donc distance problème il suffit que vous avez des coordonnées yoo fiable donc pour ngeen mën a sànq wax nga ni euh, que génn nga si sous région bi. Mhm. am na dëkk yow jot a tudd. Mhm. léegi côté expérience au niveau fii nii Sénégal. Mhm. Euh, yan collaboration nga jot am fii nii. waaw côté expérience euh, la ñuy njëkkee parce que foofu li ñu ci am aussi on a eu à faire beaucoup beaucoup de manifestations ici au niveau du Sénégal d' abord parce que moi je crois que. Euh, depuis que j'ai commencé à faire de la couture, donc j'ai essayé de, de, de, bouger un peu. Donc on a eu des manifestations qu'on a tenues à Dosso, ça fait très longtemps, ça fait des années euh, derrière. Mais nous avons continué de côté. Récemment, après la Corité, on a eu à faire une manifestation. Nous avons collaboré avec qui nous a invité, nous avons fait un défilé donc euh, avec euh, vraiment tous les participants. c'était une très très très très grande fête et vraiment une très grande réussite aussi. Donc du côté expérience aussi, à côté de nous collaborer au niveau des autres tailleurs qui sont au niveau national. Moi, j'en fais partie du mouvement national des tailleurs du Sénégal, c'est MTS. Donc, c'est un grand mouvement qui qui a réuni tous les 45 départements pour le coordonné. Donc, nous avons un président qui s'appelle Moussambo, il est en voyage, mais l'intérim est assuré par le président Abdou Aziz le secrétaire général d'Amsa Abib Afatik, la présidente aussi adjointe elle est de la Casamance, elle s'appelle Madame Kaita. Donc euh, sur ce volet-là, nous pouvons s'arrêter un peu et vraiment développer beaucoup de choses sur MTS parce que MTS est un grand mouvement euh, qui vraiment est en train de faire un travail colossal au niveau du pays. Donc on est en train de former beaucoup de jeunes. C'est des jeunes tailleurs affiliés au mouvement. Donc toute association désirant d'être formée, donc on y MTS peut demander en achetant la carte de membre et avec une adhésion. Donc on y ñëwal defal la formation dans tous les domaines donc ci couture sur l'entrepreneuriat donc j'ai eu la chance moi de sant à bu de di de ci ñi nga dispensé dispenser li nga cours entrepreneuriat donc ci tablette bi j'ai beaucoup de photos tu as eu à vraiment euh, constater ça mm. donc j'étais récemment à Diamniadio précédemment à ngi woon Oussouye donc fa formation j'étais à Mboro et je dois rejoindre bientôt après la Tabaski euh, Noto donc c'est des formations que je vais dispenser sur l'entrepreneuriat particulièrement sur le euh, de niveau 1. Donc, c'est des cap euh, techniques de renforcement de capacité pour nos membres qui vraiment nous jouer à un niveau pour atteindre un niveau. Donc, la chance de MDS may na et vraiment suis ciy sant di ci et puis ci aussi l'association des artisans de Meké qui a eu à me former d'abord, pendant mon ma et puis j'ai aussi continué à me perfectionner pour mën a un formateur et Dieu fait que vraiment leur moom objectif le boo xam ne atteindre nañ ko yàlla dogal na fait partout dans dans le Sénégal dañ ñu fay woo ñuy dem di leen defal formation boobu donc ñu ciy sant yàlla bu baax en toute modestie hein, vraiment. Hmm. ok euh, léegi on va parler de mon nouvelle technologie ah. ku ni CERS la. Euh, mm-hmm. ni kër Makumba. Mm-hmm. Je euh, mhm. on va parler de la nouvelle technologie. Mhm. Euh, peut-être euh, via l'internet. Mhm. on peut parler de Facebook. Instagram. est-ce que monde question parce que c'est une question très importante je vois que ça c'est incontournable parce que je me dis que ni sans pour autant sax nga nek euh, un informaticien sans pour autant nga def sax ay ay ay ay cours particuliers en informatique mais il suffit juste que nga xam ni portable dafa bok ci les nouvelles technologies te légui ak liguey bi fi mu toll danaka lepp ci portable ci daanaka ci lay dox boo xolé modèle dañ la envoyer par WhatsApp y a aussi sa communication pratiquement ci WhatsApp lay doon euh, leneen li ci des mooy utilise Facebook pour vraiment avoir une beaucoup une diffusion beaucoup plus large pour y yaatal yaatal gis-gis bi ak vraiment courtiser la clientèle beneen bi ci dess moom aussi ci liggéey bi aussi vraiment li lay sante ak li lay dénk lépp daanaka fi mu ne mënatoo ko japp donc assistance bi baxna personnel bi baxna mais nak aussi nga am machine des fois les grandes les grandes lignes ak yi nga ne rendez-vous yoy nga mën ko dugal ci ki ñu ciy sant yàlla bu baax na que yàlla dogal na loolu nga xam ni muy Facebook muy WhatsApp bi muy Instagram bi ak Twitter bi yooyu yëpp yàlla dogal na aussi ñi ngi ciy góorgóorlu di ci di ci di ci dem di ci rencontrer aussi ñi nga xam ne mooy see clientèle ak ñi nga xam ni c'est d'autres personnes yoo xam ni en fonction de votre métier ci ngeen di Joko ak ci ngeen di liggéey bi ci des aussi ñuy sant yalla bu baax nga xamni def nañ formation en informatique ça nous a permis vraiment d'avoir une touche beaucoup plus professionnelle sur euh, li nga les nouvelles technologies donc on a eu la chance de faire cette formation et sur ça dama ci gërëmaale li nga la maison de l'outil ça nous a permis vraiment d'avoir une formation bien ficelé et une formation complète en informatique avec la coopération française di ko di ko di ko di ko gërëm donc en toute modestie loolu euh, bokk na ci li nga xam ni euh, man bénéficié wu naa ko te kër gi aussi mi ngi koy utiliser euh, ci ay fànn liggéey bi di ci mën a jokkoo ak clientèle di ci mën a waxtaan aussi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti. en tant que Mecquois. Mm-hmm. natif dëkk si dëkk bi. Mm-hmm. bon gis nañ que ni yow da nga créer entreprise. Mm-hmm. te ku ni entreprise. ça dire que am ngay employé. Mm-hmm. bon léegi si loolu lañ bëggoon nga leeralal. waaw liggéey bi nag moom euh, dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey bi dafa toll ci jamono boo xam ne fi ne daanaka lu ci bari doo ko mënal sa bopp ndax la clientèle est devenue beaucoup plus exigeante dañu am pastef ci seen liggéey de ce fait que su fekkee ni que tu peux da nga bëgg a gérer carrière moom il faut nga wut rek. ñu la ci jàppale déjà bi nga amee xaraat bi am yére bi am pas-pas bi am man a man liggéey bi foo faut na nga wuti ñoo xam ne nag ñoom ñooy jàppale ci personnel là soo ko commencé installé rek déjà yaa ngi dugg ci dans l'entreprise te ku ne entreprise dafa am ay noo xam ne nag noonu lay doxee soo yoree nit aussi di liggéeyandoo ak moom di xëyandoo moom di am lu que ça soit un salarié ou bien quelqu'un qui travaille c'est un mercenaire après à la fin de la journée xam d'accord ci ci rémunération donc tu commences à devenir vraiment euh, quelqu'un boo xam da gérer une un personnel d'autant plus que aussi di nga un personnel boo xam dañ pour aussi vraiment kër aussi définit ci innovation parce que pratiquement la majeure partie des apprentis ici ce sont des jeunes filles parce que pour plusieurs raisons lañ leen lañ leen lañ leen parce que mon nañ ci citer parce que les jeunes filles aussi sont devenues beaucoup plus ambitieuses ci ñaw que góor et puis vraiment am nañu touche boo xam ni nous ñoo fine a fiin ñoo gën a am na bari daal vraiment ñoom am nañ lu yàlla jagleel na leen ko ci liggéey bi aussi donc euh, am pratiquement une majorité de jeunes filles am aussi ay xale yoo xam ni c'est des jeunes garçons yoo xam ni aussi dañu ñëw pour jàng métier donc loolu lépp c'est un mélange de tout entre vraiment des professionnels ak vraiment c'est des amateurs yoo xam ne dañ fi ñëw pour jàng métier donc kër gi noonu lay fonctionner donc vraiment li ci sant yàlla bu baax am na un climat d' apaisement boo xam ne vraiment ak un climat de sérénité boo xam ni ci biir kër gi vraiment ñëpp dañu nekk ci jàmm dañuy seq liggéey bi on travaille vraiment avec un volume extraordinaire macha allah donc ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax. léegi li ma bëggoon xam. mooy mhm. critère eh, yi critère. Mhm. Eh, maanaam pour nga liggéey ak CERS la. en tant que client ou bien en tant que non pas en tant que client en tant que apprenti ki nga xam ne dafa ñëw. Ah. pour jàng métier yow yow nan ngay sélectionné say. sa ñi ngay war a jàngal métier waaw ñi nga war a jàngal métier. ça moom c' est une question boo xam ne ça me tient tellement à cœur parce que vraiment nag liggéey bi fi nekk nii euh, bu njëkk bu ñu defee jeunesse tuuti bu njëkk da nga daan jàngale métier parce que sa doom. wala sa xarit wala sa cerbaat wala ku mu mën a doon wala sa dëkkandoo wala koo xam ne dalay dégg ci lu baax rek ñëw dénk la ko nekk liggéey nga mais vraiment avec cette nouvelle génération là c'est devenu un parce que bon jamono moom moo toll kenn mais jamono moom moo toll foo xam ne aussi képp koo xam ne da nga koy jël pour mu ñëw nekk sa atelier di liggéey wala nga war ko jàngal métier dafa am fii ci kër gi dafa am ay règlement ak ay charte yoo xam ne danga koy matale moom mooy que ni il faut que sa tuteur ou bien sa parent ñëw ànd ak yow su loolu amee aussi y a des exigences ci moom par rapport à keur gi mom moy ki nga xamni mom moom la fi andé il faut mo am une surveillance bo xam ne daf fiy ñëw régulièrement di la seet ñu man diko évaluer li nga xamni yow moom nga fay def di ko rendre compte comme ça mu mën a xam yow deug deug deug deug li nga fi nekkee ak li nga xamni mom aussi ci nga ci nga ci nga nekk donc lolu c'est une exigence parce que mënul ñak sinon da fay indi vraiment ay ay ay ay ay conflit parce que nit soko ko yoree te doo ko surveiller ou bien do rendre compte ki nga xamni mom ki nga xamni mom lako da fay indi souvent des des des des difficultés te ku métier aussi wax ni discipline parce que métier balam ko koo mën il faut que tu sois discipliné te métier dafa large métier du question ñaaw rek dafa laaj vraiment tous les aspects nga développer sur le plan de la discipline sur le plan de l'habillement sur le plan marketing sur le plan de le vestimentaire yooyu yëpp da nga ciy veiller donc vraiment métier bi c'est un métier extrêmement large boo xam ni dafa laaj bu bare bare bare bare da ba tax na soo ñëwee ni man ñaw rek laay jàng te defaroo yeneen ñi nga xam ni moom moo ànd ak ñaw euh, daf lay sonal di nga mën a ñaw lool mais nag dafa am yoo xam ne daf lay manqué fii nag ci kër gi ñun vraiment on veille à ce que képp koo xam ni yaay fi ñu jéem a matal loolu ci yow moo tax souvent je suis un peu euh, exigeant les gens disent que je suis un peu difficile mais je suis pas difficile c'est juste que rek vraiment nit su jëlee espoir aussi jox loko am yaakaar ci ni ki mu la jox ni di nga def ci mom métier donc y a un travail à faire nga bañ relation ci mom bañ ko utiliser rek mais il faudra faire vraiment nga inclure ko li nga xamni mom moy jiko yi inclure ko aussi li nga xamni mom moy vision bi inclure ko aussi li nga xamni mom moy l'amour du travail te lolu ça demande des sacrifices souvent, je suis traité de quelqu'un de très difficile ou bien de compliqué, mais c'est pas ça. C'est juste que le métier demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts.